À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. beneen ponk ci actualité de la le 19 passé. Euh, ak euh, le 20 démb ak li nga xam te moom moo di tey di le 21 bi nga xam te moom moo di la tournée économique du chef de l'État wala boog ëllëg ci altine ji di la tournée économique du chef de l'État di le 21 bi mu war a jeex tournée bi nag le président l'a démarré au niveau euh, de sa région natale au niveau de Fatick avec Niakhar l'étape de Niakhar mu nekk tournée économique boo xamante ni doon na ko def mais def ko arrêté woon depuis 2018 reprendaat ko ma jàpp ne euh, c'est bien c'est bien beau mu dem ci àll bi ni nemmeeku ji li nga xam te moom moo di euh, euh, su le plan agricole li ñuy def parce que ku nekk xam ne ne aucun pays dans ce monde ne peut pas se développer sans pour autant que mu appuyer sur un levier économique boo xam ne notamment l'agriculture parce que l'agriculture dafa nekk la locomotive qui peut tirer également sur les rails de l'économie ma jàpp ne loolu am na solo mais aussi si on voit bien la visite du chef d'État dans certains certaines zones on vie que des coopératives des associations et cetera ñoo xam ne elles ou ils sont dotés des moins agricoles ils son ils ont ils ont été outillés mais jàpp ne du ñooñu rek ñoo nekk Sénégal il de a des n factoriels d'agriculteurs ñu nekk dans ce pays qui s'appelle Sénégal te tey jii amuñ benn jumtuwaay ngir amal seen mbay ma jàpp ne bu ñu wanee lal rek la cache euh, li ma li ma naan euh, souvent day nekk euh, benn cache misère am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw soxla woon nañu matériel parce que boo xoolee état yi ñu dem on a vu parce que mécanisation de l' agriculture boobu muy woote c' est ça qui doit être fait parce que si la mécanisation n' est pas bien faite tey jii ñu fexe ba ak waat à un développement wala ñu am benn benn benn soxla ko donc nañu fexe ba ni sunu maam yi doon béyee parce que bu ñu fi gisee ay tracteurs la ñu wane. suñu maam yi ni ñu bayee ba tey am na dëkk yu bëri moom la ñuy béy ëllëer la ñu yore yore ay yu jàpp si loxo ay fas ak mbaam di ko xëcc loolu tey jii la waalo gën a wulee ñaay te loolu dafa war a jeex bu ñu bëggee développé su la plan agricole parce que réew agriculture daf ci am solo lépp lu ñu dundee suba ba ngoon ci suuf si lay jógee wala mu meññee ci kaw loolu lépp dafa nekk loo xamante ni agriculture te dafa laaj de moyens techniques yoo xamante ni et matériels yu koy accompagner je pense que loolu comme il a euh, lancé projet Université du Sine saalum avec euh, sur le plan agricole formé des ingénieurs des techniciens pour mën nañu fexe ba outiller également ñi nga xam ne tey jii dañoo doon mbay ndax da gis ko ne baayam ni mu daan bay lay baye daa xëy fekk baayam daan yor alléer mu yor alléer et cetera et te loolu dafa bëri si àll bi ñi la wan noonu nag nga dem fa ñu wan la ci tool yi noonu quelques tool yi du ñooñu rek ñooy bay Sénégal y a plusieurs agriculteurs yu nekk dans ce pays il faut les appuyer donte rafetlu naa visite boobu franchement euh, je suis très euh, satisf euh, fier ci visite bi dem si àll bi nemmeeku ji leen waaye tamit ñi ngay àndal nañ lay rend compte la wax dëgg gi ministre de l'agriculture na lay wan àll bi ñi nga xam ne ñu sonn ñi nga bëgg a bay ñii nangu nañ seen suuf yi wala ñuy suuf sa amuñ ñu ko bayee noonu nañ la ko wan moo gën itam ñu loo xamante ne ministère le président de la République ndax gis sa hectare yi nga wane foofu yaa ngi fay bay agro business di woo yeneen gars yi pour que yeneen yeneen naataango ñu def noonu euh, ñi nekk secteur privé mais tamit bu dee bëgg nañoo def noonu ba pare amuñ accès aux terres wala bokk ñeneen ñu ñëw nangu suuf si di ko jox ay étranger loolu tamit mënul suqali réew mi donte peut-être yow di nga mën a am possibilité am sa suuf soosu ni nga ko waxee wanee sànq si si image yi ñu gis ko si télévision nationale jàppaleel baykat yi parce que baykat yi sonn nañ lool waa àll bi ñu ngi sonn lool donte yaa ngi def ay jéego waaye wolof nee na baax suy baax gën dafa